على إمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مشاهدين والمشاهدات السلام عليكم mbokku jullit yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam ñoo ngi nuyu imam bi ak mbooleem ay ma yi topp ci moom di nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu Omar Jonn ak mbooleem taggkat yi yonent bi sallallahu alayhi wa di nuyu jigéen ñi ak mag ñeen ndaw ñi ak ñi fi ñëw représenté al umma ñoo ngi nuyu di balu ak waa dëkk bi yëpp karce bi xam ngeen ne ren burdu bi pas-pas a ko def waaye du man-man ndax ci jàkka ji lañ ko daan defee ñëpp teew mbedd mi fees waaye ren ak taw bi ak ndox mi jàkka ji fees del ak ndox depuis lu jege weer a ngi ni kenn julliwul ci jàkka ji depuis lu mat weer a ngi nii sama kër ay mool ngay teg ngir jàll mbedd mi noonu jafe-jafe boobu ñu am moo tax burdu bi ren defuñ ko ci bayaal defuñ ko ci jàkk ndax amuñ fuñ ko defee lépp a tooy lépp a ba tax na délégation yi daan ñëw yépp dama leen wax ñu toog ndax bu ñëwee duñu fi xaj ñun ñu jéem ko def rek ci suñ biir waaye délégation yi moom jotuñ jóge ci benn gox pour ñëw ndax xat-xatu palaas bi loolu la yàlla dogal ren ndax burdu kenn ñemewu ko tàmbali di ko fomm di ko dog looloo tax waaye konoon ñu def ko waaye ñemewuñu ko ndax suñu rendez la ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu rendez la ak moom ndax bis bu nekk jullit bi dina am rendez-vous ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante gàmmo nag ak burdu dafay rendez-vous officiel ki tax ñu bind la ba nga ne ci àdduna bii di dox di wax nekk nit nga am rendez ak moom boo doon xuus ci géeju deret it war naa mën a xuus ba yegg ci moom moo tax ak circonstance bi lu mu laaj rek danañ ko ko jox waaye danañ ko def loolu mooy bu ñu yéeg fii tey ci barab bu xat bi yàlla nañu yàlla may bu ko fekkee te jàmm yàlla na nawet am waaye bu ñuy dugg ci burdu yàlla bu ñu ndox mi def nii mu ñu def rek waaye nag yàlla nawet am loolu mooy sabab bi ndox mi jël na jàkka ji jël na kër yi jël na koñ bi te malheureusement nag ñun amuñu meer ñun moom maire yoof du suñu meer ñun ñii man de ak mboolem ñu dëkk ci quartier bi fii maire yoof du suñu maire ils n'ont rien fee ici dara lañ deful fii kenn gisu leen ña fi nekkoon saxaleen tane xam ngeen man du ma lam du ma du laxas sama làmmiñ ku deful dara dama naan la defoo dara maire Yoff defuñ tus ndax liñ fi dëkkut la ndax liñ fi gan la kenn xamul sabab bi waaye taxawuñu defuluñu dara ñu meeru Yoff maa ko loolu ku leen di jottali na leen ko jottali parce que nëbbuwuma ko te bu jotee danaa yëkkati sama kàddu ne defaleelu leen ñu dara bu bis jotee sentir luñu leen ok ñoo ngi nuyu délégation bii fi teew tey muy suñu mbokk suñu wóolëre suñu doyen duwaaye Mayam Mbay Mayabe Mbay Mayabe Mbay ñu bokk ñu bëri dégg nañ turam mu ànd ak doyen Mouhamad Diop ñoom délégation ñoom délégation magu Pastef yi lañ bokk magu Pastef yi xam ngeen ne fii nag daara la moom ku ne salaama ku ne asalaamualeykum ñu ne waleyka salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu dara la sama jarbaat imam Dramé jotul ñëw am téq-téq ndax am ñu jagadi ca këram ca Amdoulaye tax mënta ñëw waaye moo waroon na nee na jiite seen délégation ñëw waaye ñoom ñi ñëw teew teewal nañ mbooloo mañ bokk yépp ganaar nag ku ko xeebal ku ko xeebal feebaram yaa ko rey ganaar kenn du ko xeebal feebaram maanaam nit kenn du ko tuuti bisam ku bàyyi sa te teewal nit ci bisam yaa dundal nit ki te yaa ko màggal te yaa ko fonk waaye boo ko xeebalee bisam it woppi ganaar la wopp ja koy xeebal moo koy rey kon ñoo ngi leen di gërëm duwaaye ñoo ngi leen di dalal ci seen kër ci seen i mbokk ci seen i wóolëre ci seeni dëkkandoo ñoo ngi leen di tatagal am kontante ci teew bi ngeen ñëw teewee suñ tëjte burdu bi tey nekk naa kontante bu rëy ci ñun ñoo ngi ñaan ngeen jottali ñu loolu mbooloo bi yépp nag gannaaw bañ gërëmee kon ñëpp imam bi ak délégation yi yëpp sama soxna yi teew na fi xam ngeen waxoon naa leen biig si Sidi ma tooñ naan leen ah am na sama soxna de eh, caméraman yi mën nañoo bañ jël yi bu leen neexee ñu bàyyi rek maa ngi dugg ci waxtaan bi wax naa leen ne démb sama soxna dana teew si ci barab bi muy aja pend sëy eh, imam si dee ma ne ma xanaa mooy tëj burdu bi <laughs> ma ne ko waaw waaw eh, biñ ma ko mayee yàggul la waaye ànd ak délégation indi fi tiraanga yu bare bare bare bare bukki nag biñ ko mayee jabar lépp takkar naa se neex ñu ne ko bukki gaaw ma mu ne moo gaaw ma gaaw wax dëgg yàlla soxna si ñoom yàgguñu mee gërëm nañ ko ndax taalibe la bu dugg ci daara te séentuwu fi dara lu may wut barke rek ak ngërëm moom lañu ñu wan biñ ko biñ ma ko joxee ak léegi waaw te ñeme na togg te ñeme naa bari te ñeme na koo joxe ñoo ngi koy gërëm di ko sant ci teewaayam yëpp ak i mbokkam ak i wóolareem wax naa leen démb ne leen dana ñëw tey kon ci tëj ci burdu bi waaye itam bu leen fàtte ne sama màggat yi maa ngi leen di nopp ba tey <laughs> waaw sama ñaari màggat yi ci kër gi wala xaar Jóob ak waaw ñaari màggat lañu waaye maa ngi leen di nopp ba léegi nag waaw nopp naa ñetteel bi waaye nopp naa awo beeg ñaareel bi nag waaw kon daal kon daal man dama nobaate rek <laughs> waaw noonu la waaw xawlul maxruuf sadaqatun waaw kaddu bu sell bu yiw nga dugal ko ci xolu nit dundal nga nit te ñoom loolu rek lañu am seen coono yeeg seen kër-kër yeeg seen nangam nangam yëpp waaw tagg ne yaa baax ak nopp naa la rek lañ ci am boo ko ko joxul yaa ko xañ dund